nga Sénégalais yi circonstance euh, yeen sen dolel APR ak bi ngeen euh, bi ngeen ko Mimi. Mhm. Euh, ana lan moko sabab. damay ci information yi nga xamné réponse yi nga xamné que y Diallo mhm. mais historique. Mhm. c'est-à-dire ñun nous Mimi Touré ci ñun du mais damay commencer ci benn exemple bu ndaw rek jël benn loi exemple loi sur la parité bu ñu xëyoon suba Macky Sall kenn xamul fu muy fu mu jëm fu mu jëmee réew mi bu ko neexoon mu xëy suba nii loi sur la parité dama koy dindi su boobaa position PDS bu dee waaw dina jaaxal ñu bari mm-hmm. parce que PDS moo tëgg loi bi mm-hmm parce que PDS les contours les conséquences les inconvénients les loi bi mën a jur ba am ci résultat mu jaf ko présenté ko Sénégalais yi mu une loi kon bu xey beaucoup bëgg dindi kon PDS est contraire à lui-même c'est ça la réalité donc exemple si vous avez jël dama bëgg ñëw article 60 bi indi li dal Mimi Touré ñun parce que historiquement y a un groupe parlementaire am ay députés, daj ci ñoom lu ne fay seen caution indi leen ñu ñu campagne suñu idéologie wala ñu campagne suñu programme ñëw assemblée nationale le parti d'en face jënd leen wala bokk jox leen dara ñu dem ànd ak moom. Ablaye en tant que visionnaire mu ne lii de li koy dindi mooy fii ak amaguma doole mënta deñ su ma yàlla mooy doole dina deñ. yàlla mooy ko doole mu jël nguur gi mu ni li ngeen di def mooy xalaat leen ci député boo xam ni soo fexee ba mu dem assemblée nationale la ngay wax du ko wax la ngay def du ko def du la ko nëbb à la limite dala ciy ñàkke sax kersa. gars yi ne kon nu ciy xalaate mooy xalaat ci l' article soixante dugal ko ci constitution bi dem ci règlement intérieur assemblée nationale dugal ko ci daal ni léegi kat kun fi gisati nga doxale noo xam ne yàgg sa parti bokkul ni ngeen di doxale que nga bind wala muy une démission de fait nii la ci loi bi taxawee ñun yàlla nattuñu ñu dem benn moment Macky Sall am ak ñun bis bi am ci ñaari député yoo xam ne nan doon doxalee ak Macky Sall nëbbuñu ko. ñoo ko doon xëpp saafara di ko takkali sengoor di ko wayal ay maamam lu mu wax ñu ne ko gongo lu ñu wax ñun ñu ne baaxul te nu xam ne ñoo leen fa indi ñu ni waaw ñii lu koy faj mooy nag comme lu yoon dafa am nan dellu ci lu yoon wax lu yoon wax mooy nanu càmbar l'article soixante lan la wax xool règlement intérieur assemblée lan la wax ñii dañuy ñàkk seen post député muy ñan muy mbay njaay ak Moustapha Cissé mais ñun ñu defoon loi boobu yàlla fexe ñun ñu appliquer ko. donc dàq ci ñaar ñoo xam ne dañoo amoon njaboot comme on dit mais loi moo dal seen kaw parce que loi la loi est impersonnelle comme dal na seen kaw ñu génn leen assemblée nationale muy Mbaye Ndiaye ak Cissé Lo waaw bu doon doxee nag di dox di dox di dox di dox ba yoon ñëw dal ci keneen. Mm-hmm. loo xam ne si ñun ñoo ko defoon. Mm-hmm. kon ñun suñu ngor mayuñu li ñu wàcc woon. ñu koy lekkaat sunu ngor mayñu ñu liñ ne woon moo baax ñu ni baaxul sunu ngor mayñu ñu liñ tegoon nit ñu ni dagganatul sunu ngor moy fan tegoon suñu dag ñu teg ko fa lool moy sur le plan idéal euh, idéal sur le plan des principes le PDS a respecté ses principes démocratiques ses principes de constitution xamni li la yoon wax mais benen bir humainement parlant kan la dal euh, Mimi Touré mais Mimi Touré man yéenewuma kenn lu bon moy politiquement yéenewuma ko avancé. ndax la merci beaucoup parce que man dama am un goût inachevé de la gestion de ce pouvoir. Mhm. Abdoulaye Wade mo géré sénégalais yi sot ñu mhm. jàppale Macky Sall dàq ñu. Mhm. Macky Sall jël nguur gi. li ñu bëggoon a def lépp ko ci sama parti. ñu dem ba dox ni naam sunu góor gi mi ngi fekk xel mi mepp ngi fi ñu nanu xalaat jël ku ñuy wax Karim Meïssa Wade def ko candidat am yaakaar ne dina diriger dina diriger réew mi donc goût inachevé bi ma amoon ki ko war a àggale si sama entendement mooy Karim Meïssa Wade mais su ma toppee Mimi Touré du am parce que moom tëj na ko d'aucuns me diront que ni Macky Sall moo ko tëjlu waaye loo gis rek am na contraire man bu ma mën a indee justification Macky Sall moo doon patron d'accord mais dinaa leen indil keneen ko Macky Sall nekkoon patron te mom bokkul ak mom taxawaay. mu nekk ministre de la justice. angu affaire bi beugona a que la femme la plus influente de ce Sénégal. ah mom loolu la bëggoon. waaw loolu la bëggoon def ko la femme la plus défaillante de ce Sénégal <laughs> c'est ça la non c'est la réalité. Mhm. parce que réalité politique mo doxee non mhm. donc ki def loolu. Mhm. ñew singili Karim Wade. fexé ñu une ko ñun déetawaay.

le Sénégal s'est engagé à respecter les conclusions du groupe de travail donc ce bi mais loolu na voter pourquoi parce que elle entend respecter ses principes elle entend rester dans sa logique logique moi lan ma tëj Karim kon bu ñëwee di wax li ko d'accord Sénégalais vous bu respecter que logique ni comme lii moo ko wàcc woon du ko lekkaat pourquoi sénégalais yi bëggu ñun ñu fexe am benn loi bu nu votelu muy l' article soixante bi nekk ci constitution bi ñun ñu bëgg a weddi suñu bokk je suis fier de mon parti je suis fier euh, d' appartenir au PDS parce que logique pour logique buñ dexo woon neneen mu bett ma su ma ñëwee ci ne Mimi Touré bu ne Macky Sall ko doon liggéeyloo mais Mimi Touré ni Macky Sall nekk woon patron noon la Macky Sall nekk woon patron Thierno Alassane Sall Thierno Alassane Sall ay contrat dafa ñëw Macky Sall signé loko mu bañ ñu dakk ko il a pris ses responsabilités kon Mimi bi ngay japp lu Karim Wade bi ngay ñëw loo xamne ne si dinaa ci yegg tay botul secret d'inscription parce que lu jall la ku ne xamne ni le procureur Ali Ndao dawul may Karim Wade dara te nit bu jëmee ci procès y a des pièces yi accompagner le le le procès Mimi ñun ñu la bal lolu parce que bi Karim Wade de dem procès. pièces yi ñu indi pour ñu dem ci procès yi Aliou Ndao li mu doon bon bon bon bon jàppoon na ni bijoux yi nga xam ni que jabaru Karim Wade moo ko moom te doomi Karim Wade war koo doon vraiment humainement parlant wutuwul ci procès dara Mimi rappelle-toi sa position bi ñu la woowee def la haut-parleur ci bureau juge bi la nga wax ci loolu mais elle a été cest à xaw ma sax qualificatif bu ma koy jox dafa mel ni du sœur dafa mel ni du jigéen le yóbbu ci procès bi ci mom la jógee kon elle n'avait elle n'a qu'à prendre ses responsabilités à un certain moment elle a eu un cœur dur ñun buñu nexé ñu fayantoog yow sur ce plan mais on attend respecter nos principes ba paré mm-hmm. te humainement parlant d'une fayoog au mbalé man bu fekkoon may PDS rek baluma la bu fekkoon may PDS rek mm-hmm. buñ la lé dakk ma and ci taxul nak ñu and ak Macky il faut que ça soit clair mais